mbokk Sénégal maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam li ci jiital kilifa diine yi ak kilifa aada yi président la république ak xale yu Sénégal yépp boo gisee ma ne danaa wax tey ci li nga xam ne joxe sama xalaat ci li nga xam ne moom la président wax tey muy dialogue bu muy woote dafa fekk ne booba gisee naa dégg naa li mu wax moom mais balaa booba gis naa li nga xam ne assemblée nationale moom la def gis naa itam li nga xam ne conseil constitutionnel moom la wax te gisee woon naa ak ñu bare ci kujje politique yi ñu ñëw seet si ma ñu waxtaan ci Sénégal ma xalaat ne tey li ñu gis ci affaire élection yi war na tax ñu ñu toog ñu waxtaan seet naka la ñuy defee kii tooñ nag kii tooñul loolu amul solo li am solo mooy ñu toog suñu biir ñu waxtaan seet élection yi ku nekk xam ne ne li ñu commencé bu ñu ko continuer élection yu doy waar lañ nar am ñu toog si suñu biir waxtaan seet naka la ñuy defee élection yu libre transparente et surtout inclusive ni mu ko waxee boo gisee may may may may may taxaw ci inclusive boobu mu wax ndax am nañ suñuy doom tey yu nekk ci kaso yi te seen place nekkul woon foofu ñoo ñu tey seen place nekkoon na ci ñi nga xam ne ñoo war a nekk candidat pour nekk ci élection yi nga xam ne moom la ñu jëm loolu nag moo tax ma ne bi ma waxee ñi xam ne ñoom laa nekkaloon ma leen di remercier nag ñooñu ñoom ma jàppale woon ba ñu def suñu parrainage mu bokk ak ñoom parti ñooñ ñëpp bi mu waxtaaneek ñoom ñun ñëpp d'accord nañ ne tey Sénégal mënula bañ a dem place politique bi ci dialogue waxtaan wax ni nga xam ne moom la ñu doxalee élection yi pour mu nekk élection yu nekk jàmm pour Sénégal dama gis lu bari ci bitim réew ci affaire élection indi ko moo tax ma yaakaar ne tey lu ñu neex ak lu ñu naqar yëpp war nañ ko jël teg ko fële te ñu xam ne Sénégal rek. moo ñu tax a jóg ñun ñëpp te Sénégal boobu war nañ def ba sàmm ko ba buñ koy jébbal ñun xale yi suñuy doom ak suñuy sët yu jébbal leen Sénégal boo xam ne Sénégal bu mucc ayib la loolu moo taxoon ma ne dialogue boobu suma dem nag ci dialogue bi dialogue fi nañ fi ay dialogue demuma ci wante dialogue bii bu dee loolu moo ko tax a jóg man danaa si dem ak ñi ma àndal maa ngi remercier ñëpp di balu ñëpp ak bu fekkee ne li ma wax am na ñu mu naqari wala ñu mu blessé maa ngi leen di balu ak di bal ak ñëpp wasalaam